ñëwaat ci mbiru la l'épisode euh, DGE euh, caisse de dépôt et sécurité euh, retrait euh, fiche euh, fiche parrainage euh, loolu yëpp ki nga xam ne moom mooy le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye ne léegi dañuy créer commission dañuy créer commission électorale indépendante mm-hmm. dañuy créer une une une CENI euh, alors que fii Sénégal on a on a déjà une une Sénat après l'ONEL ak euh, yeneen structures yëpp est-ce que on peut faire l'économie est-ce que du ñoom euh, jaar-jaar boobu moo tax ñu jàpp ne xëy na euh, bu ñu amee un collège électoral indépendant qui s'occupe de de de l'élection ñu génne si loxo une administration qu'ils ont souvent jugée euh, partisane. mais administration boobu n'est-ce pas administration ñu organise élection yi non administration boobu ñuy wax. ñoom ñoo gën élection yi ni yéen a gagné administration boobu xam am na yoo xam ni c'est des indicateurs c'est des de démocratisation cest dire dëkk boo xam ni da nga fa organiser élection le pouvoir sortant ak le ministre l'intérieur bokk ci parti boobu organiser élection pouvoir bi ñàkk dañoo war a dépasser la question électorale ñoom administration bi soupçonné di administration moo organiser élection ñoom ñu gagné à à combien pour cent. à 54,28 pour cent en war ñàkk. di administration moo organisé élection yi Barthélemy Dias gagné administration moo organisé élection yi Ousmane ko gagné dëkk boo xam ne mën nañ manipuler élection yi loolu du fa am donc moo tax moo ne question bi dañ ko war a dépasser Sénégal booy xool depuis 1983 question boobu rek la ñuy wax la question électorale question war nañ ci wax accessoirement mais principalement aussi principalement aussi mën nañoo wax ci leneen on peut faire confiance à notre administration boo xoolee ban dëkk nga gis fii dëkk yi ñu wër nit ñi dañuy def coup d'état on suspend la constitution. waaw mais Sénégal Sénégal lu fi xew président de la République day jël décision conseil constitutionnel censuré ko le président se soumet à la, à la décision du conseil constitutionnel ça veut dire que institution yi loolu mooy rôle institution. les régimes. mm de l'administration euh, pour euh, pour pour pour écarter des candidats euh, Karim Wade. waaw ba ci cëppaandaw la conseil constitutionnel. dafa appliquer la la conséquence euh, de décision entière antérieure Khalifa Sall ba ci tëppa cëppaandaw la conséquence constitutionnel daf ko écarté en en en appliquant des décisions euh, antérieures il arrive que cette administration là aussi euh, se fasse la le le, le complice euh, du non, régime pas, en place non non non pas complice l'administration benn instrument la tey administration bi organise élection yi ba Amadou Ba ñàkk élection yi tey jii président Diomaye Faye bu doon organise élection yi ce sont les mêmes fonctionnaires ce sont ce ce ce ce sont les ministres qui changent c'est ça l'administration tey jii boo xoolee euh, inspecteur général Thiendella Fall ñaata organisé ñaata ñaata ñaata ñaata élection la organisé sous combien de régime loolu mooy administration administration instrument. on l'oublie il organise les élections mu loxo mu ngi ci processus électoral bi na ëpp na dix ans on l'oublie doon def Cheikh Gueye bi njëkk jiit jiite DGE loolu la doon def loolu mooy administration administration dafa nekk benn instrument boo xam ni dañ koy def à la disposition ki sénégalais yi wóolu donc l'administration est dans la loyauté pas dans la loyalisme loyauté mooy loyauté par rapport à l'institution loyalisme mooy par rapport à des individus l'administration du Sénégal ne prête pas allégeance à des individus